loolu du ubbi mu xam caabi. waaw maanaam miftaax. Mhm. mooy liy ubbi. Mhm. suratul fatiha moom. Mhm. suratul fatiha de. ah juróom-ñaari aaya la sëñ sëñ Maodo. man kay maa la wax ni suratul fatiha bépp ku waaye képp koo xamante ne yàlla dimbale la nga am jot ba man ko di ko def junni bis bu jot. dootoo soxla dara ci àdduna doo ñaan kenn doo leb kenn sunu borom da lay joxe xéwal junni sóoratu fatiha waa junni sóoratu fatiha bis bu jot léegi nag sóoratu fatiha fi ne boo ko fi boo ko doon def junni bis bis bu jot nga def ko junni di nga dem ba say xéwal doo dem doo xam nu mu toll سورة الفاتحة فين بو كخولي 125 124 عرف لا لكن الفاتحة الكتاب لون لا بري اي سكر بري كو اي تور فين امنا تي بن بو خامتاني ني نيغي نانكو دائرة الإحاطة جروم بن جروم بي جروم نيت تور لا يو خامتاني نيوكو تنك اك يينين يينين يو خامتاني ني مني سوكو ليرال لو ملني ارسات مكسو هنا حل حبيتو حتى دان زهيو سيزون يا سيزون ساسا حارل ديجون ساسا سازر آه، سزر هيدين أهل سمو الحكم مفسدو أك أهم سقطون خلق يسوع لون من الفاتحة يو يب أي توري أي توري فاتحة من فاتحة مقل ناكي جني تور يو هم تنيني بنو بوكو تيك سمورب بنو بوتي نك لم يجرين خم ناكو من لم لم يجرين أم نلو ما جخم بو دخل لم يجرين لب منو ما كو خم دخل فبري وين بوكو أمينك سنو برو من لا ديبلي مرة توري يلا يانغي في ماي ماي جن نياخ سمو بوكو سنيجي نكو غسو دون تدن رنغ خم buy faj aajo gëstu ko ba xam ko boo ko xamee mën na laa dimbali waaye waaye waaye waaye waaye junni faatiha yow mi yel moom baax junni faatiha bis bu jot képp ku ko saxal doo leb doo ñaan doo doo sax te borom day faj sa aajo junni faatiha rek képp sax ca rek waa junni faatiha tu kitab ñoo xam nga def ko guddi wala nga def ko bëccëg junni faatiha tey boo ko saxalee sunu borom dana la dimbali am na ci boo xamante ne nii dinaa ko maye mooy boo jëlee dimanche nga koy tàmbali nga def 70 altine nga def 60 da ngay wàññi par 10 Hmm, di wàccaat di wàccaat léegi boo demaatee ba dimanche jotaat nga tàmbaliwaat 70. waaw maanaam loolu moom amul lenn lu ko tax a jóg lu dul xaalis. da ngay léegi dimanche nga def 70. 70 Fatiha léegi nga def nga nga wàcc 60. dem 50 dem 40 dem 30. ba dem 20 dem 10. ba dimanche.